gaaw a téye la alors waaw je m'appelle Louis Mendy membre du groupe jeunes chrétiens engagés de Pikine paroisse notre d'abord pour commencer ñun dañoo sollicité woon pour ñu ñëw jàpp ci euh, nettoyage armères yi voilà moo tax ñu ñëw taw parce que même bu dul dara suñuy mbokk ñu ngi fi wala suñuy xarit wala suñuy dëkkandoo wala suñuy am di jàmm ñu xam ne ñu ngi fi c'est normal que ñu ñëw def teewaay bu rafet bi waaw te xaaruñu dara ci retour quoi. macha allah jaar na yoon am na organisation te tamit ba ñëwee dañoo yaatal comme ni ngay yaatalee sa mbokk quoi waaw ba ñëwee li may lancé rek mooy tout d'abord léegi Sénégal doo xàmmee musulman ak chrétien parce que léegi ñëppay ànd ñëppay fréquenté ñëppay demalante moo waral ba ñëwee fii nii amuñu problème boobu noonu dañ ko def ci jàmm ak salaam waaw te am na entente quoi